alhamdulilah rabbil alamin rek ñooy sant yàlla sant suñu yàlla tamit sallallahu alayhi wa sallam suñu sëriñ alaaji Cheikh Abdoulaye Sow di ko ñaanal mu yàgg fi loolu ànd ak wër rek ñu koy moo nekk nit koo xam ne maanaam jëmm joo xam ne ñun ay taalibeem ñu toppee ko ñun xam nañ ko dafa am lu ñu defal lu bari suñu àdduna mm. saa suñu jaaxee suñ ko wooyee muy kuti di bëccëg mu wuyu si ñu mm. defal ñu ay teranga moom mooy borom teranga amat gars yi dafa leen saa dama doon wax jàmbaaru diinul islam aussi moom mooy borom teranga mm. te nit koo xam ne saay soo saay soo accee si moom rek teraanga la njëkk a defal waaw ñun xam nañ ci moom loolu moo nañ ko gën a jàpp ñun mu la ma nañ gën a ànd gën a liggéey gën a gën a jàppale suñu waay bi parce que tey suñ ko jàppalee suñu bopp lañ jàppale suñ ko ñàkkee rek ñun dañuy ñàkk suñu àdduna parce que dañoo xamal lu bëri suñu àdduna maanaam tey da nga rëccu sax yow maanaam sa àdduna naan ndax aw ma ay million aw ma ay milliards ak yooyu xam li am jëmm ji moo gën parce que da lay ëllëg boo la yàlla dénkee as tuut di nga xam noo koy gérer parce que àdduna tëri ne tëri boo xam ne boo góorgóorluwul tuuti rek boo àndul ak jiitu yàlla dëgg da ngay yàqule parce que tey yàlla dénk na ko euh, ku maanaam mu yilif jinne yi te àdduna bi lu fi am lu ne jinne ñoo koy doxal tey bala yàlla dénkee ku mel ni jëmm ji ngay xam lépp si àdduna ngay dox ci mbedd yi di dox di gis gis jëmm yi mel xam ne ala këram la muy yeela ci këram ngay seetaan ci ay vidéo am di yeewu kon boo koo am rek war na koo jàpp ñun taalibe yi dañ gën a góor góorgóorlu gën ko jàpp gën a laxasaayu liggéeyal ko parce que mission bi dafa dafa rëy parce que rëy bi mu rëy mooy dafa ñëw pour liggéey yàlla ak bi liggéey yàlla ak bi nag ay caaxaan bokku ci boo ci boolee caaxaan nag moom da génn ala kulli al di nga génn ñu ngi ñaan yàlla ñu lu ñu nekkee moom bëgg bëgg gëm dëgg boobu ñu bañ a caaxaan lépp loo xam ne bëgg na ko rek ñu ndox si lépp loo xam ne bëggu ko ñun bëgguñu ko maanaam man ma bisi ngi tey nii maa ngi ni ak ànd sama njaboot maa ngi ni njaboot gars yi nii dénk naa la ko ginnaaw yàlla ak bi sa sa sa yaakaar tey ëllëg dénk naa njaboot gaa ngi nii nii nii saa su ne ñu ngi nii saa su ñu ngi nii ñu ngi nii ay tuut tànk lañ dénk naa la ko parce boo gisee tey ma ñëw rek ma ñëw pour dénk la xam ko moo tax ma ñëw ne sa njaboot gaa nii sëñ dénk naa la sow yàlla na yàlla defal jàmm yàlla na yàlla aar sàmm la si barke Seydina Muhammad waaw waaw Papa Diaw looy wax si kër gi dund bi. alhamdulilah sant man dafa am wax naan lii may wax day yàgg naa ko wax di bëgg ku ko déggul dégg ko ku ko déggul déggaat ko loolu la daan wax waaye te jii dafa amul bees mm-hmm. loo xam ni dama ko bëgg sànni mm-hmm. njaboot ji mm-hmm. barki démb damay déglu ci vidéo yi ci YouTube bi dégg sëñ bi naan yaayam. Mm-hmm. nee dafa bëgg ceebu yàpp. ceebu ginaar ceebu ginaar. ma mu am ku ñu jël ànd ak moom dem jëndali ko vingt ganaar mm-hmm. indi mm-hmm. nee defar ko jël ganaar jox doomu aadama yi jël deret ji jox ko jinni ah, man nag mu xaw ma laal tuuti parce que dama waxoon sëriñ bi ni ko saa yoo amee soxla rek ganaar naa ko yëg waaye ba ma dellu seet sama xel mm-hmm. dafa am lu sama xel jàngal li ma jàngal mooy seen Thierno mi fi mu teg way jóoram mm-hmm. fi mu teg way jóoram moo tax mu ne ko way jóoram a soxla na jël ci alalu boppam ñaq boppam mm-hmm. defal ko ko lii du ko defee addiya loolu laa comprendre moo tax ma xam lu mu def lu tax mu def et foofu laa xamee nag ni sëriñ bi moom léppam yàlla la mm-hmm. bëgg-bëggam yonanti sallallahu alayhi wa sallam toujours moo xam ko toujours moo wax ko mm-hmm. moom a gënal samay wayjur moom a ñu dégg mm-hmm. yaayam gis nañ fu ko teg lii ma leen wax dégg ngeen ko fonk bum ko teg cër bu ko jox moo tax mu soxla mm-hmm. di dafa naan ci yàqam la koy faje du ko jële ci dara mm-hmm. konte boobu kii nañu d'accord ni mm-hmm. xaritu suñu borom la sëñ bi xaritu suñu borom la xaritu suñu borom rek sëñ bi ngay mën a ndeysaan jërëjëf yàlla na yàlla yàggal suñu ànd yàlla na yàlla yàggal suñu ànd yàlla na yàlla saxal la fi yow itam yàggal la fi e bàyyi la ak sa njaboot sa yaay Mm-hmm. ñu koy defal mm-hmm. ah, yal na yàlla bàyyi ko mm-hmm. yàgg yàgg yàgg xam naa ni la ci xolam li ci xolam ah moom rek wax sa wéy sa njaboot yal na yàlla taxaw sa soxna eh, ku mel nii nga mel am soxna soo xam ni ah wax dëgg yàlla yow day gërëma toog rek yem ci da nga koy tagg <laughs> loolu njëriñ la de wax dëgg yàlla eh, sa njaboot rahman rahim yàlla na na yàlla taxaw ñun dey kontaan nañ ñun dey suñu gis-gis mm. kontaan nañ te li ñuy gis day tax ñu gën a ñeme ñam mm, yàlla na yàlla taxaw jërëjëf waaw jërëjëf alhamdulilahi rabbil alamin di am kontaan ak mbégte lool tey vraiment ci taalibe ci mule mule ndeysaan Ablaye Diop a ngi njaboot gi famille bi ànd ak suma suma sëti vraiment ànd ak soxnaam ñu ñëw vraiment ñëw baalu si ak ñëw dénk ma njaboot gi nangul nañ la ko gannaaw yàlla ak yonent bi vraiment macha allah nekk taaliba bu ma lépp lu ñu xewle tey taal otoom ñëw macha allahu eh, am na benn yoon mu ne sëriñ bi ñaanal ma am oto ma ne ko allah di nga am oto ma ñaanal ko ba yàlla dimbale ko mu am oto mu ñëw ma bi ah macha allah yàlla may na ma oto yàlla na yàlla yokk vraiment mu ànd ak njaboot gi laa demee Korité ñëw baal si ma ak vraiment kontaan naa bu baax mm. yàlla aar leen sàmm leen yàlla defal leen jàmm ak taw féex mm. vraiment kontaan nañ bu baax di nuyu nag mule mule yëpp partout daal le monde muy national muy international di leen baalu ak bu baax a baax mm. di nuyu nag alaaji ma jaw kamara vraiment nekk mule mule bu mag sax bëgg ma lool nag amul ci man sago comme nu mu ko waxee rek parce que euh, chaque weer daf may indil ginaar defe naa ne macha allah fu ma jëndee ginaar man la neex comme nu mu ko waxee dama xam ne bu ma ko nee dama bëgg jaay ma vingt ginaar pour ma euh, préparer ajaratu Mariama Kamara mhm. duma ma jaay daf may jox mhm. te nag li ñuy wax ne macha allah euh, kilifa laa aussi am na yi nga xamante ne tamit vraiment duñu sa taalibe la waaye duñu la duñu la kii lépp nga def lépp nga nangu lépp moo tax euh, ma ne ko amul problème ma bañ ko sonal ndax bu ma ko waxoon dama bëgg vingt ginaar mhm. mun na ma indil quarante ginaar mhm. te du ma fay dara que chaque jour noonu la may def daf ma indil ay ginaar vraiment macha allah mhm. ginaar yi may lekk fii ci kër gi yëpp moom ma koy jaay waaye kerew ma ne jarul ma ko koy wax ndax bu ma ko waxee moom du ma jaay daf may indil ginaar yi ma ne nag xaaral bi yoon ma doxantu dem jëndi comme lu mu wax gën a barkeelu dox barkeelu ak yooyu moo waral ma dem uti vingt ginaar vraiment préparer ko parce que jour boo ajaratu Mariama Camara dafa newoon da ko bëgg ceebu ginaar pour ñu préparé ko mu mun a dem euh, Makka macha allah ci laa dem doxantu jënd vingt ginaar waaye bu dul loolu man duma ma jënd fenn ginaar vraiment wu ma fenn ginaar moom rek moo ma indil ay ginaar mhm. waaye dama xam ne du ñu la may lépp aussi nga jël lépp dama xam ne bu ma ko newoon damaa bëgg ay ginaar mhm. boo moytul quarante ginaar la fi indi wala cent ginaar wallaay jërëjëf Camara vraiment kontaan nañ bu baax gis nañ aussi mule mule yi ñoo ngi jënd si moom ginaar bu baax te defe naa li ma leen waxoon xam ngeen ko ku mel ni ajaratu Ndeye Cheikh ku mel ni ajaratu Khadim Mbuub ak ñeneen ak ñeneen bu ma limee may juum bëri na ñuy commandé ci moom nañu ko jàpp foofu sëriñ bi moom rek moo may jaay moom rek moo may jox ginaar man du ma jënd waaye keroog dama ne xaaral ma dem doxantu jënd parce que sinon bu ma ko ne dama bëgg bëgg rek maanaam balaa ma naan ginaar rek day indi ginaar yi <laughs>